salaamaaleykum internetu Sénégal alors ñu am mbégte ñëw seetaan set si fi koo xam ne euh, kenn dootu ko présenté parce que ñi seetaan famille sénégalaise yëpp xàmmee nañ ko soxna Boury ñu koy woowee euh, Ngoné ci famille sénégalaise ma bàyyi la nga nuyu ko internet yi ñuy seetaan. Euh, nuyu naa la. maa ngi nuyu internet yi nga xamante ne ñu ngi seetaan Sénégal. Mm-hmm. alors tey su ma la doon wax yow yaay kan nga présenté wu lan nga may wax. damay wax rek man la nit koo xamante nit ku simple. Mhm. nit ku ku bëri jàmm. Mhm. ku oyof voilà. Mhm. lan moo la lan moo la attiré ba nga dugg ci milieu cinéma wala théâtre. Euh, je peux dire que man maa ko bëgg ndax du may def sax ay casting dañ may boole ak genre nit dafay gis sama profil mu neex ko mu wax ma et tout loolu la rek. Famille sénégalaise moo nekk première série bi nga joué wala amoon na yenn kii yoo doon def. non non. Euh, joué naa série ak waa Marodi c'était il y a trois ans ou quatre ans derrière soo duggee si bi sax. tu vas voir ça ban série la mami la ak genre concept bi ma ak sama jëkkër la woon ba tey nekk si kër gi di ko brouillé ak yooyu. ok série boobu daal nañ ko suivre bu baax saa nit ñi. Mhm, mhm. Mhm. après Marodi nan nga def kon ba intégré Pikini. ah Pikini euh, dañ ma booleex ñoom ma dem fa rek nekk dañ dañ ma booleek ñoom daal. ma dem def casting bi mu jàll ñu jël ma. bi bañ la njëkkee jox sa rôle nag ñu ñëw ñu ne la yow yaa joué rôle belle-sœur fi ban ban lan nga njëkk a xalaat ban impression nga ci njëkk am. aw ma si benn impression déjà xam nga rôle rôle la rek role bu ñu ma joxoon tamit dama koy joué parce que acteur amul benn rôle boo xamante ni war nañ la ko mën a jox te doo ko réussir les xam nañ ni loolu boobu c'est différent de moi dama mm. si nduroog mag mm-hmm. fu mag laay def du ma xolloo du def dara xam nga te si côté boobu noonu damay remercier waa Pikine parce que su fekkee ni que rôle boobu dañu ko jox pour nga responsable carrément parfois ma bëgg def jiin dama wan sama bopp ak yooyu dañuy bañ ne ma rôlu responsable nga am rôlu taaw rôlu njëkkee buy jàppale lii liiwam donc da ngay responsable nga wane ni yow yaay mag Mm-hmm. voilà rôle bi moo tax ma réussir ko parce que si jàppale ñoom bu baax. Mm-hmm. instant bi nag da ngay sol rôle ngóone ñu waxtaan ci ngóone après ñu demaat ci <laughs> sama noppi. alors euh, rôle bi euh, nga nekk belle sœur boo xam ne peut-être bokk nga ñu gën a apprécier ci série bi déjà retour yi chaque jour lan nga ciy am nit ñi bu bu bu ndey message wala bu ndey woo. yan retour nga ci am. damay dox ñu ne ma waa njëkkee bu baax baa ngi nii. ba ne leen bàyyi leen sama rakk ji sagar moom tamit ku baax la. Mhm. c'est juste qu'elle est naïve que elle a été manipulée par Soxna la rek. Mhm. man peut-être maa ko mag maa ko ëpp expérience moo tax. ba pare man maa ngi sëy xam naa li si sëy moo tax peut-être ma mun jël marietu jàppee ko comme euh, sama bopp puisque si série bi maa ngi sëy. Mhm. donc xam nga nit buy sëy moom boo amee kuy sëy sa kër danga koy téye comme ni nga bëgg booy sëy ñu téye la noonu loolu rek. Mhm. mais est-ce que am nga benn anecdote nit woo la ne la man lii laay dund ak sama belle-sœur wala lii laay dundee ak sama jabaru frère wala yooyu noonu am benn anecdote bu la touché boo xam ne wala kooku soxoroon ñëw après yow nga influencé ko ba mu changé euh, comportement am na ñoo xamante ne dañ may woo mhm. di ma wax que genre man sama rôle da leen neex parce dañuy nekk si seen néegu sëy am ay njëkkee yu leen sonal suñu sonal dañuy am njëkkee yu mel ni manax yooyu dañ may woo di ma wax yooyu mm-hmm. si côté euh, jabaru Modou Modou bi aussi y en kii mm-hmm. qui m'appelle qui me disent man tamit damay am genre wax yi comme li lay wax sama jëkkër nekk fii ñu naan dama am jëkkër am far y en a qui vivent mm-hmm. am na ñoo xamante ni dañ koy dund carrément si ko foofu sax laa fay taxawee comme ñu koy dundu nga am jëkkër am mu nekk extérieur ak yooyu yow ban expérience nga si ban moo la gën a toucher ci rôle boobu nga joué. bi ma si gën a touché mooy bi ma wax léegi. Mhm. Sonabatel bi mu ñëwee ñu ne ma nee nañ am jëkkër am far sa jëkkër yaa ko liggéey yaa ko dëj foofu pour farantu wax boobu dafay metti parce que sëyuma mais en fait loolu kuy sëy nga wax ko ko dafay metti sa mhm. jëkkër nekku fi. déjà loolu metti na yow yaa ngi sëy sama jëkkër yaa ngi toog goro toog ñëpp toog ngay sëy si kër ñu lay wax ay baatu ginnaaw ay yaa dëj sa jëkkër ay da nga ay gaaf loolu sa fait mal. Mm-hmm. ñu gis tamit nga am jëkkër joo xam ne moom du gaawul joxe xaalis. jëkkër du nay yow <laughs> du <laughs> loolu tamit euh, rôle bi nangu ko parce que loolu da nga ko réussir da ngay wane carrément na sa jëkkër du joxe nekk ngeen si ay difficulté mu ne leen awma awma te terewul maa ngi toog di sëy. Mm-hmm. loolu lay wane ni sëy du alal. mbëggeel amaana moo ma tëy si sëy bi moo tax ma toog di sëy rek di muñal koo xamante ni defaralu ma dara waaye maa ngi toog di sëy maa ngi muñ loolu la rek ak beneen aspect euh, famille bi ñàkk nañ mu am dem nañu ba amatuñu dara seen frère abandonné leen ñoom ñu débrouillé wu yow nga toog chaque jour yaa ngi bëgg a trouver solution pour pour la famille la famille elle est sacrée mhm. c'est pas parce que suñu frère dem na bàyyi ñu ginnaaw ko dañ ko war a bàyyi ginnaaw boo seetloo chaque jour man maa ngi dem di retourner waat si maar di ko ñaan di parce que moom la ñu am amuñu papa amuñu yaay moom lañu am donc loolu bu ko melee te melu ko woon dañ naan nit a tax ku nit tax mu mu wëndeelu mën nga koo indiwaat ci sa bopp soxna ba tóor moo ko détourné donc man je ma dis que donc ni mu def ba détourné ko ñun mën nañ ko wan ni ko moom nit ku baax la warul topp soxna ba tóor ci rythme bi mu koy yóbbu ko amul lu ëpp famille wam lu bëri apprécier tamit soxna ba tóor sa belle même temps sa mbokk la teewul nga ànd ak ko nga nekk ci dëgg yow dëgg bi moom nga moom nga nekk waaw parce que début bi mhm. suñu yaay boo seetloo da doon bañ sëy bi ñun ñu ne ko mbokk dafa rafet mm-hmm. lu koy defar moo gën li koy yàgg donc man soxna Batoor bu ñëwoon sëy rek dama koy téye ni may téye <laughs> Mariétou mm-hmm. parce que nit amul lu dul mbokkam suñu doomu nijaay la comprendre nga mm-hmm. ci série bi donc bu ñëwoon def ni topp ginnaaw Marietou kër gi day neex waaye dafa ñëw di jaxase ak di def ko sab <laughs> di ñu bëri nag di am benn remarque bu ñu def peut-être ngoone wutiwul liggéey dafa toog si kër gi jëkkëram nekku fi moom mu toog rek jéemul jéemul am liggéey wala yooyu noonu wala scénario bi moo demee noonu en fait xalaat nga ci parce que ñi dañuy dugg ci pour ñoom affaire bi dëgg la da xam nga ñii dañuy dugg si bi mhm. waaye si duggee waroon nañu gis ne damaa dem boutique rek sama jëkkër bëgg maa rey mhm. kooku fan lay liggéey ji mhm. maanaam sama jëkkër dafa nekk nit koo xamante ni daal bëggul ma bouger bëggul ma def dara ci seen te du joxe waa du joxe waaw ah, bàyyi ma suñu kër <laughs> ba genre jëkkër boobu yàlla ñu si yàlla musal franchement yàlla si yàlla musal alors ñu génn ci ci série bi tuuti ban activité ngay yëngatu à part à part Euh, série yeeg yooyu euh, noonu. damay damay jaay j'ai ma propre marque Déranger MS damay jaay ay trucs en wax ay yére affaires yooyu en même temps je suis animatrice maintenant. Mhm. à la ITV dafa am benn émission bu ñu fa commencé di def. Mhm. commencé na léegi macha allah. mais cinéma bi euh, par exemple théâtre bi wala bokk film famille sénégalaise ban porte la la ubbil est-ce que am na ay porte déjà yum la ubbil fa lan la la lan la la permettre tey nga def ko. nit ki moom loo nekk rek. jàpp naa ne dina la am lu mu la lu mu la loo nekk nga gis ci sa bopp dina am lu mu la parce que famille sénégalaise moo tax peut ñi xam ma ba mu mën a dem si télé wala leneen ak leneen famille sénégalaise moo tax yow nga xam ma ba ñëw interviewé ma mm-hmm. ay nit yu baax yoo xam ne dañ may dañ may defal seen alal di ma defal lu nekk famille sénégalaise nga gis mu bëgg ma mm-hmm. comprendre nga di di ma am ay nit yu baax quoi te te lu bëri dalay yomb parce que soo doon dem di di ut dara même ba si kayit ah, foo xamante ne day bëri nit da ngay rang bu ñu la gisee dañ lay jàppale ndax peut-être rôle bu baax bi ma si joué leneen ak leneen. Mhm. te su ma doon wax soxna buy jox conseil Ngoné ci série bi lan la war a yokk wala lan la war a wàññi. Ngoné soxna buri mu jox conseil Ngoné mhm. ah xanaa rek mu jug jéem a wuti liggéey. Mhm. jàppale boppam. ndax toog di xaas si maar rek ak jëkkër ju la amalul njëriñ amul sens mm-hmm. sa jëkkër bu lay dëj na la jox dara jëkkër ju lay dëj te joxu la dara loolu amul sens parce que ku si nekk tam boppam lay defal quoi say neex na trop waaye ngay def amal sa bopp dara dàq ko chaque jour ngay ñaan góor di ñaan góor bu yàggee sax danga koy soof mm-hmm. lan ngay conseillé aussi ñoo xam ne am nañu belle-sœur yu mel noonu lan la war a comporté woo ak moom belle-sœur yu compliqué yi ñëw kër gi jaxase ko et belle ñoom lu ñu war a comporté woo pour pour jàppale seen frère. man damaa jàpp ne yoonu belle sœur nekkul ci defante sëy pour man jigéen bu sëy si si kër ba fa fekkee moroomam war na ko jàppee ni borom boppam. Mm-hmm. ndax dafa neex nga dem sëy sa sa kër jëkkër fekk fa sa belle sœur mu tëye la comme sa bopp ngeen nekk sœur nekk complice. Mm-hmm. parce que da bàyyi say sœur bàyyi sa famille ñëw si famille donc dañ la war a tëye comme sa kër niñ la tëyee quoi. Mm-hmm. man loolu laa gis. ma gis ne mm-hmm. franchement belle bu baax ci a touché man am naa séquence moo ma gën a touché mais yow ban séquence moo la a touché. ci euh, bi biige di jël paaka bi neen maa dama lay rey boobu maa ngi daw si escalier sonn. genre loolu maar looyee rek daal di koy ne dama jël paaka bi saag ko ne da koy rey boobu bii gi sës na xolam fees na loolu c'est marquant parce que doom bu dem doom boo xamante ne yow yaa takkal sa pap ñaareel pour moom doom nga dem bu bëgg a rey sa papa ndax ñaareel bi mm-hmm. c'est que nit ki am na lu ko metti mm-hmm. man yaa boo xam ne touché na ma mooy bi nga fàttali sa yaay mu doon wax et tout xam nga mm-hmm. boobu moom boobu boobu en fait j'avais vraiment vécu ça en fait suñu yaay yal na yàlla guddal seen fan bu baax a baax a baax a baax danga boobu noonu non dama ko dama ko dund si biñ koy joué dama doon xalaat man mënuma sax xalaat en fait ñàkk sama yaay parce que awma lu sut sama yaay comprendre nga mënuma ko xalaat quoi mhm. ñàkk waajur dafa metti léegi imagine nga toog war a dund loolu mu mel ni sa yaay dëgg la mu metti loolu boo ko xalaatee rek day metti si yow donc affaire boo ko boo ko boo ko joué day réussir quoi mhm. c'était émouvant mais boobu est-ce que méttiwul séquence bi ñaata yoon ngeen ko tourné wala benn yoon la. wala benn yoon lañ ko tourné. Mhm. te defaatuñ ko sax ñaari yoon. Mhm. parce que dafa dafa tristoon trop. daa mhm. mel da wu sa yaay nag. <laughs> waaye ñun amuñu lu suñu yaay yi parce que nu ñu mel ñoom la yar bu baax yaay la comportement bu baax yaay la lépp lu baax yaay la donc suñu yaay ñun nu ñu munti mel nit bu nit nu ñu munti mel suñu yaay ñoo si contribué wu quoi. mais ñoom li ñuy apprécier sa sa famille ni ñuy apprécier sa sa sa jeu boo demee na lay wax est-ce que wuñ sa tur sax léegi di la wooyee Ngone ñoom ñëpp. man sama yaay Ngone la tudd. ah Ngone la tudd. Mm-hmm. Mm. duñ ma wax Ngone mami saw lañ may wax quand même. Mm-hmm. Euh, jusque affaire bi la leen def ay ree. Mm-hmm. nee nañ ma yaroo ma noonu. kalmoo noonu daal ah. mais est que am nga euh, point commun yow ak Ngone. si Ngone elle est gentille elle est douce et moi je comme ça. lan la ngoone mel te meloo ko yow. ni mu ni mu yambaree noonu war a mën a bàyyi soxna Batoor muy def lu ko neex ci kër gi. Mhm. noo man melu ma noonu nag. mais séquence bi ñëpp reetaan mooy ba ngay dem di annoncé soxna Batoor dafa mujj. boobu boobu boobu balaa ñu koo tourné damaa kontaan. damaa kontaan parce que soxna Batoor dañu sonal. Mhm. Mhm. ñu bëri nag si commentaire yi kañ la soxna Batoor di di am defet kañ la soxna Batoor di am defet même si TikTok yi dañ koy wax euh, loolu loolu est-ce que yéen ko doon xool yéen ko doon gis euh, commentaire internet ah waaw commentaire yi dañ koy gis dañ mhm. koy gis mhm. mais ñëpp loolu la ñëw même budul commentaire sax nga si nit si mbedd bi ñu teel waa yow dooma dóora soxna Bato waaye yow soxna Bato kañ lay daanu ñu sonn nañu mhm. seetaan ngeen ba fii bu leen yàkkamti seetaan leen rek léegi ngeen gis ko seetaan leen rek mhm. euh, kontaan nañ ci dalal bëgg nañ xam tamit say activité comme euh, animatrice nga ak yooyu noonu lan ngay gën a déglu lan ngay gën a fiil teint noir bi pourquoi nga garder ko yooyu yëpp bëgg gars dañuy bëgg xam parce que dañu ne teint noir dafa rafet ngoo ne dafa nice moom bu génnee moom day indi ay écran teint noir dafa noppale rek mhm. te xam nga noonu laa noonu lañ mel ni suñ ko dañ ñuul mhm. noonu laa loolu laa xam quoi xees tamit rafet na de. rafet na ñaar yëpp rafet ñaar sa mag bi moo tax sa mag bi wax. moom taxul moom taxul xees tamit rafet na. moo tax nga bañ mu clash la après. <laughs> non xees tamit rafet na. Mhm. Mhm. léegi euh, kan mooy sa tey boo koy xool bëggoon du doole. man j'ai pas de référence j'ai mhm. ma xool fu sori di référé fu sori. sama biir kër laa am ay référence man samay sœur samay référence je vais même pas dire ma en fait parce que yar bi nekk si ci moom. moom la def si samay sœurs donc je vais pas aller loin sama ay grandes sœurs rek ñoom si ñoom rek laay référé wu. Mm-hmm. mais est-ce que am na benn koo xam ne joué comme yow nga gis ko nga ne kii inspiré na ma par exemple. en fait je peux pas am na kenn ku ma inspiré mm-hmm. mais je vais pas être je vais pas aller loin aussi ah. parce que nit ku nekk da ngay nekk ak moom nga naw ko si jikkoom ngeen bokk li ngeen def mais nga naw ko si jikkoom. Mm-hmm. soo na ba mais joué série bi. mi tax ñëpp. nekk di di di wax dafa bon lan moo tax defoo ko dama naw jikkoom mhm. nit ku xam boppam la si aar bi nit ku baax ku humble ku simple su fekkee ni am na jikko yoo xam war naa ko jël duma dem fu sori moom mi nga xamante ni ñoo doon nekk tournage doon bokk benn lal bi ñuy fanaan dama ko naw moom ma ci jiitu ba ma ne lu may xool ci moom lay xool. Mhm. ndax macha allah. comme mise à part série bi am ngeen rapport yu baax. Euh, non kooku sama mag la. Mhm. sama mag la nit ku baax la nit ku oyof nit nite lan la mës a def wala benn geste pour mu def pour la toucher. li muy def li may toucher bëri na déjà man je suis bourrée de caprice samay caprice daf koy supporter ba man dama ko sonal man dama ko sonal bu suñu waakee dañ koy woo di ko baal dama ko sonal de. <laughs> baadu dañ koy sonal. Mm-hmm. Mm-hmm. mais benn anecdote rek boo xam ne dund ko ak moom boo xam ne touché na la. Euh, bëri na. bëri na. billaay bëri na. Mm-hmm. déjà dañuy nekk tournage on se réveille à heures du matin moom mooy njëkk a yeewu sangu. moom moom may tegal ndox man ma sangu moo may yee may tàpp naan yee ma su ma sawee saw sama yoon affaire ay la koy def mhm. te su yeewoo xam lu muy njëkk a def bu sangoo ba pare barke Sëriñ Saalu jàpp julli toog déglu xasida te loolu dama ko si naw quoi. maanaam mise à part loolu mi ngi mi ngi julli te nit ku baax la. Mhm. nit ku baax une personne entière. Mhm. est-ce que mës nga dund ci loo xam ne marqué na la wala metti na la ci milieu bi nii. man moom lu ma dund si vie bi rek ku mu neex ma ku mu ma jàngat la si man. Mhm. duma ma focus ne lii moom ma gën a neex sama vie parce que en fait benn vie la am te vie bi jeexagul mi ngi dem donc je peux pas dire lii moo ma gën a neex lu ma dund sama vie rek mu jàll bu ma marqué rek dama si am jàngat. te mhm. jàngat laa si jël après ma jàll ma fàtte. Mhm. say fans lan nga leen wax ñu lay suivre ñu la bëgg ñu la. mais man xaw ma sax mhm. man xale yi ñoom ma gën a bëgg ndeysaan mhm. ils sont tellement gentils dañu may toog tata Ngoné tata Ngoné suñu waa kër dañuy ree naan ñii yéen tolloo ñu naan lan tata mhm. que rôle bi moo tax ñu aussi nekkee mag et tout xam nga tata Ngoné bi ça me fait vraiment plaisir ils sont gentils par rapport ak nii nii nii waaw xam nga ak ñoom niñu may xëy ay tata Ngoné tata Ngoné genre ça me fait plaisir ils sont franchement nit ñu baax baaxeetu nag tey loolu loo wax si moom tamit nit ku baax la amul benn problème franchement ni mel noonu la mel c'est une personne entière aussi ah. d'accord léegi nag bëgg xam gars yi bëgg la boo ko laajul xam dañ may mer loolu laay bañ. ah ba célibataire laa kay puisque aw ma jëkkër je suis pas mariée non non. kon léegi cœur à cœur à prendre la quoi. cœur à prendre non je dirais pas je dirais pas. <laughs> parce que gars yi dañu naan non ngoone il faut ñu ay dal il faut nga laaj ko loolu. non je mais rôle bi euh, yaa ngi koy wax sànq dafa xaw a màggee des fois dañ lay def yu mag. Mhm. xam nga ko responsable tout. Mhm. par rapport ak TikTok bi dañuy gis. Mhm. ngoone moom dañuy sàcc modèle am gars yi dañuy sàcc sa modèle yi xam nga loolu. <laughs> loolu sol gars yi bëgg bëgg toppatoo it tout parce que dafa rafet dafa fashion. dan nga gisee loolu aussi côté TikTok bi. Ah, euh, man moom dama bëgg àdduna. man dama bëgg ay solu affaire yooyu ba yooyu rek laay lijjantee. ça fait nga sol dara. heure boo dugalee TikTok ñu ne la dugalal modèle bi s'il te plaît dugalal li dugalal li loolu ça fait plaisir. Mhm. d'accord kontaan nañu ci dalal la tey Sénégal. maa leen gën a kontaan. sama mhm. est-ce que maison yeneen production yi ñu lay démarcher pour yeneen série. ah waaw ça am na yuy ñëw. Mhm. ñuy sant yàlla. d'accord merci beaucoup. merci Aïda.